اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم السلام عليكم ورحمة الله xam naa ni ñu ko amee woon aada rek maa ngi sàkku ñi jàng fatiha ak qul allahu ahad ak benn ñi ñaanal ko ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo daan bokk jotaay bi ak mboolem way jiitu julli bi ñu yéene leen tuyaab yàgg koo def di nettali kenn ci soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu yàlla dogalee ma dàjjal laylatul qadri lan lañ ci war a wax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ay baat yoo xam ne yàgg nañ ko fee wax waaye nag du ñu dañ di ngir dabu barke guddi gi ndax yonent bi loolu la dégle maa ngi wax baat yi rek ñu bokk ko wax am na ñu ko mën waaye nag léeg-léeg dañuy wax ne ab daifu amiru rak booy def dara na nga sóoraale ñi mën ñooñu ñoo allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni baay bi ñu wax daal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa neen bis boo daajalee laylatul qadri na nga wax baat yi euh, balaa laylatul qadri di ñëw am na ay nit ñu ma laaj ñu ne dafa am benn julli bu ci musoon wax ay jigéen sax lañ ay gone sax lañ waaye dama koy nettaliwaat après ñu bokk ko jàpp ci téere bu ñuy wax durratun naasixiin ci lañu ko toxalee dafa wax ne am na naafile gu am solo goo xam nit mën na ko def ci laylatul qadri mu ne dangay julli ñaari rakkaa rakkaa bu nekk yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon saar wi ñuy wax lixlaas muy qul wallahu ahad juróom-ñaari yoon ñaar rakkaa yi lu ci nekk lool nga ciy jàng mu ne boo sëlmalee nga ne astaxfirullaha wa atuubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon mu ne boo ko defee balaa ngaa jugee ci barab bi nga ko defee yàlla dina la jéggal yow jéggal sa ñaari waajur yebal ay malaayika ñi dem ajjana di jëmbat ay garab di tabax ay njënde di yoral ay yolle mu ñeexal la yow mu ne doo génn àddina mukk lu dul yàlla dina la wan loolale lii daal la bon nag loolu am na njëriñ téere bu ñuy wax durratul naasixiin ci lañu ko toxalee bon naafile bi loolu la daal eh, comme ni ko Cheikh Mouhamad Bachir waxee dañu tànn tey comme ni ñu ko daan yàgg defee tànn benn tomb dajale ci dara ñëw bokk ko waxtaan ak ñi ci teew tey jii ñi ngi tànn lu ñuy wax assalaatu ala nabii sallallahu alayhi wa muy li ñuy wax julli ci yonent bi daaw bokkoon nañ taxaw ci al istighfar muy astaghfirullah ci tënk ñu nafaree ko darsub daaw balaa ñoo continuer ci bu ren bu fekkee da ngaa bëgg yàlla suturaal bu fekkee da ngaa sax di am njëggalu yàlla na nga sax di def astaxfirullah loolu daal moo tënk suñu waxtaanu daal boo bëggee njëggalu yàlla bëgg sax di am sutura si yàlla na nga sax di def astaxfirullah te ngay tudd baat bi mu leer indi xarf yëpp ndax joxe nañ ko misaal sa portable bi wala sa machine bi bu fekkee dafa am code secret boo koy dugal boo ca juumee wala nga manqué ci wala nga ëppal ca du dugg te boo ko forcé forcé ko day mujj bloqué mbokk yi nañuy seetantal bu baax baal yi ñuy tudd bu ñuy jaamu yàlla dinañu dimbale ngir ñu mën am ngëneel salaatu ala nabi nag mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee salaatu ala nabi mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tomb yii lañ ko bëgg tënk benn bi mooy julli ci yonent bi am solo gu mu am solo beneen bi mooy lenn ci ngëneel yi nga xam ne julli ci yonent bi sallallahu wa sallam am na ko beneen bi mooy ñu bokk xam ne kasratu salaati ala nabii kafilatun bi umuri dunia wal axira mooy ne bëri di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën na laa yéwénalal sa mbiri àddina yëpp ak bi mooy alxasu ala al min alsalati ala annabi sal allahu alayhi wa sallam fi yowmi aljumaati wa laylatiha mooy bisu ajjuma sayduna muhammad sal allahu alayhi wa sallam dafa ñaax kay bi bu baax ci bisu ajjuma guddi gi wala bëccëg nañ ci bëri di def salaatu ala nabi sal allahu alayhi wa sallam benn booy ñu bokk taxaw seetantal ba xam ne xayrul umuuri adwamuha wa in qalla mbiri daal li ci gën mooy li nga saxoo ak lu mu néew néew ah, téere ko toxalee maa ngi ciy jéggalu léegi laa koy tudd am na téere bu ñu wax taajul jaami' lil usul fi ahadith rasul sallallahu alayhi wa sallam xam naa léegi te waajutaay bi yëpp mokkal ko ndax toujours dañ koy tudd am na benn téere bu ñu wax tarbiyatuna ruhiya am na téere bu ñu wax ghariba ak alquran ci boppam ak dalailul xayrat lu gën a bëri ci li ñuy wax ci téere yooyu lañ koy jëlee mbokk yi lii di salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam lu am solo la ndax jàngal nañu ko yàlla daf ñu koo sant ñu jàng ci alquran benn aaya mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما yàlla moo wax ci alquran mu moom yàlla ci boppam ak malaayika yi ñoom dee dañuy salaatu alayhi wa sallam mu ne yéen nga xam ne gëm ngeen yàlla sallu alayhi yéen tamit dee salaatu ala nabi waaye wa sallimu tasliman ngeen ciy teg tasliim lii de yàlla moo ko santaane moom nee na ma ngay def ñun tamit nañuy def salaatu ala nabi di julli ci yonent bi ngir roy ko moom yàlla loolu xewal gu la ngir roy malaayika yi loolu xewal gu la waaye ngir delloo njukkal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax li mu doon ci ñun waaye tamit nañ ci boole li ñoom ak taslim li gën mooy a boole allahuma salli na nga def taslim loolu moo gën loolu moo gën moo gën nga toog rek ne sallallahu alayhi te ko te waxoo wa sallama waxaale wa sallama bi baax na ci lool moom julli ci yonent bi sallallahu alayhi nag képp ku koy def na yëg ne yaa ngi ñaanal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye na nga xam ne yaa ngi ñaanal sa bopp di jëriñ sa bopp ndax nag lépp loo defal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci njëriñ kenn du la ci ëppale am na sayiduna umar ibn alxataab am solo mu ne ñaan booy ñaan bëgg yàlla nangu sa ñaan na nga ca boole salaatu ala nabi boo ko mën a ubbee nangu ko ubbee boo ko mën a tëjee nga tëjee ko ko bu fekkee bëgg nga yàlla nangu sa ñaan lu tax sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax ne inna du'aa mawqufun bayna as-samaa'i wal ard laa yas'adu minhu shay'un hatta tusalliya ala nabiyyika muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Umar nee na ñaan dañ koo aj ci diggante asamaan ak suuf boo ñaanee ba ñaan gi dañ koy aj foofu rek téye ko foofu du dem du dem fa mu jëm day taxaw foofu rek balaa moo dem fa mu jëm di nga ci sayyiduna muhammad sallallahu wa sallam buñ la ko waxee bu lay yéem fii ci jamono di am saf soxla bindu ko ci mu jaar war a jaar yëpp dem ba àgg barab mu kal taxaw foofu lu tax mu taxaw fa parce que dafa waroon am benn signature bu mu am te amu ko bon nag julli ci yonent bi sallallahu wa sallam mooy signature ñaan bi mooy tax ñu validé ko nee na jël nañ ci anas radiyallahu anhu mu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee man zukirtu indahu falyusalli alayya fa innahu man salla alayya marratan salla allahu azza wa jalla alayhi ashar nee na képp ku teew ci barab dégg ñu tudd tur yonent bi salla allahu wa sallam yonent bi nee na ku teew ci barab dégg ñu tudd samaw tur julli ci man sayduna muhammad salla allahu wa sallam mu ne ndax boo jullee ci man benn yoon yàlla dina julli ci yow fukki yoon lool nag yomb lu nit di def ba tax yàlla bi julli ci moom fukki yoon mbokk yi loolu yomb de bu la ko yàlla xamalee yonent bi xamal la ko ñaar ñooñu seen wax kenn du ko sàggani saa boo déggatee turu sayduna muhammad na nga wax sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko waxee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ah lu war la ci bépp julli kooku borom xam-xam yépp ñoo ànd dëppoo ci xanaa naka la loolu moo am wuute rek mais bu ñu demee ci Shafi'i dañu koy fekk mu ne dafa war ci taaya bu mujj ci julli ba moom boo ko defulee danaan sa julli wérul bu ñu demee ci imam Malik daf naan war na ci sa dund aw yoon bon ci sa dund boo ci defee salaatu ala nabi benn yoon wàcc na yi ci des dañu ko sopp ci gis-gisu imam Malik am na ñu wax ne bépp jotaay bu jullit jotaayu balaa mu faa jugee war naa def salaatu ala nabi sallallahu alayhi e am na ñu ne saa boo déggee turam war nga def salaatu ala nabi waaye ci tënk daal ab jullit daa war di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci xasan ibnu ali radiallahu anhuma mu ne muhammad salallahu alayhi wa sallam nee ki gënal ci àddina kooku jar naa xam trop ndax nga moytu ko ndax ku du jëriñ kenn ki gënal ci àddina mooy ki nga xam ne bu déggee ñu tudd turu yonent bi salallahu alayhi wa sallam du wax salallahu alayhi wa sallam ki gënal ci àddina mooy kooku albaxiilu alladi man zikirtu indahu falam yusalli alayya loolu la sayyiduna muhammad jàngale sallallahu alayhi wa sallam abu hurayra radiyallahu anhu nee na jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne rahima alfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya wa rahima alfu rajulin daxala alayhi ramadanu summa insalaqa summa intalaqa qabla an yuxfara lahu wa rahima anfu rajulin adraka indahu abawaahu lkibar falam yudxilaahu ljanna rawaahu tirmidi borom tàjjee nee na ko nee na muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na torox waay ñu ne xam ne dañ dañoo tudd sama tur fa moom waaye moom waxul sallallahu alayhi wa moom torox na bakkana bu ñu ne kooku kan la mu ne mooy nga xam ne weeru wii ñu nekk tàbbi na fekk ko fi weeru bi jeex te jéggaluñ ko ay bàkkaaram rasul bi nee na loolu ku mu dal yow torox nga waaw ndax weer boo xam ne dañ ne la fukki fan yii njéggalu yàlla la fukki fan yii yërmande yàlla la fukki fan yii ngoreel ak borom bi ci safara la te weer wii li tax ñu yoonal ko ci yow mooy nga doolee ko ci ragal yàlla weer bi ñëw weesu loolu yëpp jëlewoo ko buñ ne torox nga dëgg la ah, waaye nag ñun yàlla nañ ci jëlee bépp yiw buñ ci digle mu ne keneen ki nga xam ne torox na itam mooy nga xam ne ah, mi ngi dund ak ñaari way juram ndeysaan ñi nekk mag kanamam mu dee te demul ajjana ndax nag waroon naa mën a fàggu ci waajuram lu ko yóbbu ajjana gan rawatina boo waajuree nekkee mag tombub ñaareel bi mooy yenn ngëneel yi nga xam ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa am na ko am na benn téere bu ñu wax durratul xarida téere boobu wax na ca wax ju am solo mu ne bépp jëf boo gis ñu koy def di ko jaamoo yàlla mënees na ko nangu mënees na koo delloo ba mu des benn jëf mooy salaatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallama julli ci yonent bi de moom nee na boo koy def yàlla di ko nangu yaa xam koo dox muy def benn fàttali na mu ne nañu bokk jàpp bu baax xam ne taqoo salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam dina la fàggul ay rafet rafet dina la faral ay ñaawteef dina la yëkkatil say daraja dina la ubbil bunti wërsëg dina bëril sa wërsëg dina barkeel say wërsëg dina faj say aajo te dina la ubbi dina la tëjal bépp buntu boo xam ne buntab la ak bépp buntu boo xam ne buntu ab jafe-jafe la buntu lu la ko tëjal daf lay ubbil buntu yoo ne buntu yiw la mu ne jële ci benn xadis sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñii nettali ñii ne saxaabi mu ne dañoo toog bis rek ku ñuy wax abu talha moo ko wax radiyallahu anhu mu ne dañu toog bis rek sayyiduna muhammad ñëw ñu gis xar kanam bi taali lool leer lool ñu ne ko ah yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun de dañoo gis sa xar kanam daa taali lool mu ne waaw waaw ab malaayika moo ñëw ci man ne ma yaa muhammad inna rabbaka yaqul amma yurdika annahu la yusalli alayka ahadun illa sallaytu alayhi ashran wa la yusallimu alayka ahadun illa sallamtu alayhi ashran ma ne ko benn malaayika moo ñëw ne ma yow Muhammad ah yàlla borom bi nee na xanaa doo gërëm moom képp ku julli ci yow benn yoon moom yàlla mu julli ci moom fukki yoon ku def taslim ci yow benn yoon mooy sallallahu alayhi wa sallama boo ne sallallahu julli nga ci yonent bi boo ne wa sallama def nga ci moom taslim gis nga sallallahu alayhi yàlla julli ci yow fukki yoon wasallama yàlla jullee ci yow fukki yoon waxuma ko de sayduna muhammad sallallahu alayhi wa wax mu ne jële nañ ci beneen xadis yonent bi sallallahu ne man salla alayya waxidatan sallallahu alayhi ashran rawahu muslim ak abu daawud ak tirmisi xadis yi may ci ëpp